waaw léegi xaama yombalal la laaj bi te dama bëgg nag soxlaa ma ay détail tontu ma ci rek ndax tabax jàkk ba mu noppi nga daaj ab koppatoo teg ci bunt bi kuy dugg joxe xaalis dugal ci kuy génn dugal ci ndax loolu kay fee boobu dafa sax si jëfi yonent bi wala sax wala dafa sax si jëfi saxaaba yi waaw ok nañ ko nañ ko benn benn vocal yi gàtt euh, kay fee bi nga wax de maanaam tabax jàkk ba mu àgg nga jël ab koppar fol teg ko sa bunt ba kuy dugg joxe euh, wala yu deme noonu kay fee bi mel na loolu gisuma ko ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa aywa léegi kon loolu biddaa la wala du biddaa waaw loolu de gisuma ko fenn si njàngale yonente bi sallallahu alayhi saxul kon loolu mën naa dugg ci kaadaru biddaa loo xam ne dañ koo sas su fekkee ne saxul wallahu alam aywa macha allah kon daal tabax jàkka defar coffre-fort ñu fay sànni xaalis loolu biddaa la saxul ci njàngalem yonent bi ak ay saxaabaam kon yéen yéen a ngi def benn lenn loo xam ne lenn biddaa la ci ci ci jàkka bi kon léegi yow loolu lan moo ci see gis-gis dañ ko foo war jële ndax kullu bi daxatin dalaa la wala déedéet jubluwaay bi baax na moo moo tax ñu war ko faa bàyyi ndax jubluwaay bi baax na waaleykum salaam wa Euh, kon léegi yaa mooy laaj euh, sama gisin li nga xam ne sax na si sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te du fekkee ne moo tax a jug ñooñu jël xaalis bi di ko teg sa euh, maanaam coffre-fort bi di ko teg sa buntu jàkk ji mooy joxe ndimbal ju dem si jàkk ji bu dee joxe ndimbal lu jëm si jàkk ji loolu sax na ci af am sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu du bidaa jëmmi joxe ndimbal mu dem si jàkk ji loolu sax na ci af am sunu yonent bi الله أعلم بارك الله فيك نيجي نقول تويت سو فكان جوخ لا مو نيك صراحه للفقراء والمساكين نيجي نقول سخنا في القران والسنه صلى الله عليه وسلم ايوا ما شاء الله كون دا سوما لا ديغي نيت مننا جيف داف كيفي جيف سي دينا جي كيفي بو خامني كيفي بي مسول صح سي يونس صلى الله عليه وسلم مسول صح تام سي جيف صحابه الكرام waaye nag jubluwaayu mbir ma ak jëf jay tàbbi ca biir loola moom day bu saxee ci jëfi yonent bi ci njàngale yonent bi rek kon day daal di far mbir ma nekk lu baax nga xam ne kon lee bi daala moom jël ak coffre-fort moom teg ko ci jàkk loolu bi daala waaye nag gannaaw nit ñi dañ ci am jubluwaay bu rafet mooy dimbali si jàkk eh, nit ñu ñàkk ñi defar si jàkk ji kon loola su boobaa loola moom day daal di mbir ma day daal di baax kon su ma la déggee loolu nga wax kon buñu waxé bida moy lepp lo xamné dañ ko sos ginnaaw yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam légui bida bi ñuy taxam bi tax ñuy wax nak moy bida bo xamné dafa jug ci walu jaamu yalla xam nga ab ko bu ñu buñu buñu bu defar rek lolu do ak jaamu yàlla copparfoor bu buñu defar rek tek ko lolu do ak jaamu yalla waaw suñu wàdd vocal boobu dafa dagg xam nga bu ñu waxee bidaa dañ koy itlaaq mooy lépp loo xam ne amul cosaan ci diine ji loo xam ne lu yees la moom nag dafa séddale ko ñaari xaaj dafa am bidaa yoo xam ne dafay dugg te loolu dafay dugg ci li ñuy wax almasaalih wa almusala ak loo xam ne dafay dugg ci wàllu jaamu yàlla ñun bidaa boobu la ñuy waxtaane bidaa bi nga xam ne dafa aju ci wàllu jaamu yàlla bu dee lii nga tudd li nga xamante si ni moom nga tudd mooy jël ab kees rek taf ko si ab jàkk teg ko si jàkk ji noonu rek jëmmi teg ko noonu rek loolu du ak jaamu yàlla lan mooy jaamu yàlla ga te xam ne nit mën nañ si am tiyaaba mooy nit ñi jëw ju fa joxe alal ngir mu dem sa jàkk ja loolu ak jaamu yàlla mën nañ si am tiyaaba mooy alal ji ñuy dugal ndax loolu sax na ci alxuraan ak sunna maanaam jël ndimbal def ko si jàkk kon loolu mooy mbir mi am maa teg jëmmi coffre-fort euh, bi noonu rek teg ko noonu rek jëmmi jëmmi koppar far bi noonu rek loolu du ak jaamu yàlla voilà mën naa dugg nag ci ay masaala man leen dimbali si ñuy dajale xaalis bi ak yu demee noonu voilà aywa Ahmed damlo wax nga ñaari wax nag audio bi nga njëkk a jël loolu ci kaw wax nga ci ne jëmmi coffre-fort bi fa fa mu njëkkee sa mooy dama la laajam laaj rek nga adressé ko ne loolu biddaa la ndax saxul ci jëfi yonent bi saxul ci jëfi saxaaba yi ñu dem ba ci biir léegi nee nga jëmmi coffre bi moom jëmmi coffre-fort bu teg rek ñu ciy sànni xaalis loolu moom ci euh, maanaam nekkul biddaa bu ñuy jaamoo yàlla. kon lan moo am solo mooy jubluwaayu sànni xaalis joxe xaalis ba kon mooy mooy mooy mooy moom la ñuy àtte mooy jëmmi jaamu yàlla gi. léegi daanaka moom nga waxaat sa audio mujj bi léegi li may laaj fii mooy coffre-fort bu teg nga xam ne coffre-fort bu am matériel la bu daaj teg ko. nit ñi di ci sànni xaalis nga ne kon loolu moom biddaa la waaye du nekkul bid du garaaw daal parce que nekkul biddaa boo xamante ne jëm mi ko mos moom mooy jaamu yàlla. léegi lan moo ko tàqaleeg léegi ngay critiqué muy bàmmeel bi xamante ni moom itam ab bàmmeel bu tege nee la boo gisee fi ni sànni xaalis bi ay moquette la rek ay moquette bu teg nee la wala boog genre comme genre ko boo ko mën foofu moom daanaka benn la kon lan moo tax nga bëgg a aayal bee ci jëmmi sànnikaayu xaalis bi foofu. bëgg daganal bi ni maanaam lan mooy seen différence ndax lay comme for bu teg la di ci sànni xaalis fi itam benn moquette bu teg la di ci sànni xaalis léegi moquette bii ak copper fort bii lan mooy seen différence su fekkee ñoom ñaar ñëpp nag ñoo yem àtte léegi nga bëgg wax ne kon jubluwaayu mbir mi la ñuy àtte léegi jubluwaayu mbir boobu noonu ki dem ci jàkka ji jubloo sànni xaalis pour ñu defaree ko jàkka ji lan mooy différence am tam ki nga xam ne dafa dem ci bàmmeel bi sànni xaalis ci boket boobu ñu teg foofu ngir ne xaalis boobu après dañ koy yóbbu par exemple xel koom dañ koy yóbbu sa daaree dañ koy dimbale néegu dool dañ ci fay courant jàkka ji lan mooy différence bi foofu. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw suñu waat di ni la leeral foofu yaakaar naa leer na dugal nga sa dugg na sa bopp mooy que bu ñu itlaaqee baatu bidaa mooy lépp loo xam ne amul cosaan si ñëwee ci nag lépp da siy dugg moo xam lu nekk jaamu yàlla moo xam lu nekkul jaamu yàlla. waaye li nga xam ne moo ñu différencier ak yéen mooy bidaa boo xam ne dafay aju ci jaamu yàlla jëmmi kees gi rek loolu du ak jaamu yàlla ak matériel bi ko mën a defee loolu du ak jaamu léegi nag nit ñi jubluwaay ba ñuy joxe sa kees ga dañuy joxe euh, jubluwaay bi mooy keneen mu ñu dellu ndimbal si jàkka ji loolu moom sax na ci alxuraan ak sunna loolu sunna la kon loolu loolu leer na xam nga yow da ñëw di tudd wàllu ay sànne kay ñëw di sànni sa jàkk jaak wax ñu sànni man wax naa la ko fii démb nee naa la nit ki bu ab xabaru bu nekkoon nii ñu jël sa buntu comme ni ñu koy defee si jàkk ji jël ab jël ab kees teg ko sa buntu xabru ba ne lii dañ koy dajaleel mu nekk sadaxatan lil fuqara wala ay projet yoo xam dañ koy def suba loolu kenn du ko tuddee jël xaalis di ko sànni sa xabru ba parce que sànni wuñ ko fa ko def waane dama ne sànni xaalis ci biir ab xabru maanaam ab xabru nga sànni fa xaalis ko ñu ngi koy Sénégal loolu saxul ci alxuraan sunna ak sabab bu mu mën a doon nag ak lu tax ñu ñu ko fay sànni loolu ci alxuraan sunna baarakallahu fiik laaj bi nag sériel rek ngir ci liñ commencé woon di laaj ngay tontu sans xam nga boo taxawee ne jël ab xaalis sànni ko ci barab saxul ci alxuraan saxul ci sunna ba pare nga bëgg léegi nga waxaat fële ne coffre bi ñu teg ci jàkka ji coffre boobu tam saxul ci alxuraan saxul ci sunna loolu ñoo yem àtte léegi nga ne jàkka ji kon li ci am solo mooy xaas bi ñu sant si jàkka ji bi ñu def jëmmi jubluwaay bi mooy àtte bi ma joxaat la misaal fële si bàmmeel bi kon bàmmeel bi tam jëmmi sànni gi sànni ci côté bàmmeel bi loolu du àtte waaye li àtte mooy lan jubluwaayu sànni bi lii ñoo yem wala yemuñu xam nga loolu laaj bu simple la léegi nag bu fekkee da nga ne jëmmi fee moom kayfiya bi mooy kayfiya ab jël xaay di sànni ci bàmmeel bi loolu ci boppam moo araam kon su boobaa tam lan moo la tere jëmmi jël ab xaay du ko dugal ci coffre-fort bu ñu ci jàkka lan moo ko tee araam kon ñaar yooyu ñoo bokk atte rek ndax loolu wax nga léegi ne ay jumtukaay la rek mooy defukaay xaalis la kon li ci ëpp solo mooy jubluwaay bi kon ki ñëw jël xaalisam sànni ci coffre-fort jàkka ji ngir dafa jubloo ñu dimbali jàkka ji ak nangam ak nangam kon ki ñëw itam jëlaat xaalisam dem sànni ci côté bàmmeel bi kooku tam jubluwaayam mooy xaalis jii kat xam na ne dañ koy yóbbu ca daara ja ca xel koom dañ ciy fay courant jumaa ji dañ ciy dimbali néegu doole kon léegi am différence bi foofu amul benn différence foofu noonu xam nga question yi ma lay laaj yi du question yi bëgg a xam mais question yi tanaakudaat yi ngeen di def la maam di aramal loo xam ne moog lee ñoo yem daganal loo xam ne da ngay aramal bee te fekk ñoo yem benn la loolu il faut mu leer sa bopp bi waaw suñu wàdd euh, li ma njëkk wax mooy que ne sama kàddu ma tudd lu xaram déedéet lu xaram beneen mbir la loolu boo usul tuuti da nga xam bala ñoo ne lii dafa xaram yan bir moy moy jiss d'abord man tuddu tudduguma fi lo haram man li ma fi tuddu mooy loo xam ne dañ ko manam lo xamne ne bidaa la voilà moo xam bidaa goo xam ne dafa aji ci walu jaamu yàlla wala bidaa go xamne aji wu ci walu jaamu yàlla te loolu ñu mënee soo dugal ci li wax al masadiq al mursalah wala tuddu tuddaguma fi lenn lu haram tuddu fi wala barakallahu fiik kon lolu leer na li ma tudd mooy que ne jël ab xaalis di ko sànni ci biirum xabru loolu moom saxul ci alquran ak sunna saxul ci jëfu salafu saalih moro démb ma wax ne li gënoon na yell su fekkee ne nit ñi dañ ko fay dugal ngir lañ sa jublu mooy que ne sadaxatan li fuqaraa wa masaakin ñu koy yóbbu si beneen yeneen i barab xaalis boobu wala sax buñ ko mënee jël comme ni nga ko waxee ni nga ko defee si jàkke yi def ab koppar teg ko ca teg ko ca ca bunt ba nit ñi du ko fa dugal su loolu amul benn rapport am maa jël ko di ko sànni ci biiram xam moom kooku moom saxul ci alxuraan am su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mën a doon loolu laa wax soo may tuut da nga ñu tuuti ci loo xam ne dépassé woon nañ ko yow dangaa wax wax ju leer coffre bi ñu teg si jàkka ji jëmmi coffre-fort bi jumtukaay la rek du jaamu yàlla gi mu nekk tam même chose bàmmeel bi nga xamante ne nan moket ci wet gi nit ki di ci sànni xaalis loolu tam ba tey jëm mi jublu jub jumtukaay la rek mooy sànnikaayu xaalis ñoo yem àtt kon foofu buñ ci delluwaat wala boog boo nee saxu ci jëmmi jëfi yonante bi sax ak jëfi saxaaba yi kon da nga da nga bëgg a wax dafa araam bidaa bu xaraam la bidaa maanaam bi kullu bidaa si dalaal lay tàbbi te su boobaa kon day yóbbaale koppar bee ñu teg ci jàkka ji loolu moom leer la buñ ci dëppaat di ci arrière léegi nag laaj bi mooy mu leer nga tontu ma ci minute yu néew. ki nga xamante ni dafa ñëw jël xaalisam dugal ci coffre-fortu jàkka ji jumloo cee dimbali jàkka jekk yu demee noonu nga ne baax na léegi ki nga xamante ni tam dafa ñëw jël xaalisam teg ci mokkitam bàmmeel bi fi denda bàmmeel bi moom itam jubloo xaalis bii kat ñu dimbali si néew gi doore gi dimbali si daara yi fay ci courant jàkka jeeg nangam ak nangam ñaar yii lan mooy seen différence ndax kon ñaar yi yëpp baax wala déet waaw suñu wàll déedéet man delluwaatuma ginnaaw delluwaatuma ginnaaw li ma la wax kay daanaka bépp question boo ma laaj tontu naa la si xam nga yaa ngi tudd naan jël xaalis ba teg ko sa wetu xablu baat yu kenn xamul rek sa moket baat yu kenn xamul man li ma la dafa leer dama ne la jël ab xaalis di ko sànni ci ab xabru loolu saxul ci alxuraan sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jeex na léegi yow nga ñëw di ko bëgg koo dajj di ko indi wàllu xaalis bi ñu joxe ci lii xam nga xaalis bi ñu joxe ci wàllu jàkka loolu ixtimaalaat yi dafa leer wax naa la ko démb ne mënut a génn ci ñaar imam muy delluwaat si jàkka wala mu nekk sadaxatan lil fuqaraa wa masaakin wala yu demee noonu léegi damay laaj benn question suñu wàdd man ngaa waat ci borom bi tabaaraka wa taala kenn ñiy jël xaalis yëpp di ko sànni ci xabru yi jubluwaay bi mooy kenn mu si jublu sadaxatan lil fuqaraa wa masaakin loolu mën nga ko waat aywa dafa mel ni da ngaa ràññewut ñaari mbir wala boog da tay tey léegi laaj bi ma gën kaa simplal xam naa daan areeraat léegi ab xaalis ci kaw ci ab bàmmeel loolu saxul léegi nag li may laaj mooy ndax jël ab xaalis di ko dugal ci ab coffre-fort bu bu bu bu daaj ci jàkka loolu ndax daa sax moom ci jëfe yonent bi walla déet aywa beneen bi nag ay waat moom indiwuñu si xam nga lu ñu fi indi ay firnde ay waat moom yaakaar naa bu ci defee rek yaakaar naa ne ku nekk mën ngaa toog lu ñu fi indi mooy ay firnde dangay wax loo xam ne ay firnde la may wax loo xam ne ay firnde la ñu tukkee ci alquran ak sunna di dégginu boroom xam-xam yi loolu moo ñu fi indi waaye du ay waat ndax yow nan laay waatee loo xam ne kumpa la ci ci keneen man su ma mbay waat su ma jëlee sama xaalis di yóbbu sa dem ba ca xabru ba di ko ñu am place bu def ay bën bën yoo xam ne mën naa fa dugal xaalis ma jël dugal fa man sama passeport mooy xaalis bii dañ koy dajale yóbbu ko ca daara te la majeure partie ca foofu la jëm ca daara yi dimbali ñooy jàng alquran wala boog ñu fay ci courant jumaa ji wala ñu dimbali ci néegu doole yi ala kulli xaalis yii la jëm sama passeport loolu la te jàpp rafet naa njort ñi koy def yëpp seen passeport loolu la kon nag di dugg ci yeneen xolu nit naan ndax mën ngaa waat ndax ña koy yóbbu ko yow jàkka ji si boppam ña fay dugal xaalis yëpp da ngaa mën a waat ne looloo tax ko faa dugal peut-être ngir gis tal ngir gis leen wala mu nga dugal ko fa sax ngir leneen ay yeneen jubluwaay kon kon mbir mi nekkul ci di jiima ubbi kumpaay kee lu tax mu dugal ko fa wala kee déedéet xam xamle li mën a nekk ak li mënta nekk ñu ne baag ñu ne bokk lii kat mbir mi bu amee loola dagan na mbir mii nag bu ca amee loola daganul su boobaa nit ñi xàmmee ko waaye doo ñëw rek naan ndax mën ngaa waat ndax nangam loolu bu ci desee yaakaar naa ne mën nañoo mën nañu kenn ko ne mën ngaa toog gëm la nga gëm mu jeex. waaye mbir mi dama war a leeral bu fekkee dafa am lu ci araam lu ci daganul ñu ne lii moo daganut bu dee dafa am lu ci dagan ñu ne lii moo dagan te teg ko ci ay firnde loolu rek mooy wax ji bismillah. waaw suñu waat jàpp naa yow yaay delluwaat ginnaaw jàpp naa ne fii moom weesu woon nañ ko fii weesu woon nañ ko yaa naa ci li ñu nekkoon mooy kenn ci ci ihtimaalaat yi foofu lañ nekkoon kon nag nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu des foofu beneen bi may wax mooy que ne su ma la dégg su ma la comprendre baax mbir dafa mel ne dañ koy jël di ko atte ci benn barab parce que maa ngi dégg naan daa mel ne dañ koy sànni sa dañ koy def sa wetu mu keb baag yu kenn xamul daa mel ne benn barab boo xam ne xëy na xam nga ko ñuy def loolu xeyna motax motax nga bëgg a mbiri def yi lépp bu atte mbir yi foofu lépp am na xabru yoo xamante si dañ fay sànni carrément ci ci ci si biir voilà kon bu ko atté bu lu atté ci rek yow li nga xam voilà. aywa Ahmed Dame Lo yow kay ya ya ñew ci yaa dëppaat mbir mi ndax jëmmi kay bi ni sànni xaalis lool dépassé won nañ ko atté won nañ ko ba nopi né nga loolu jumtu way kese kessela <laughs> ba fekk ci la ci loolu. jubluwaay ba ci lañ to ci lañ tolloon waaye bi ma ñëwee ci biir jubluwaay bi da nga ñëwaat dëppaat affaire bi bëgg a taxawaat naan sa xaaj bu ñuy sànni ci kaw moket ci bàmmeel loolu saxul ci jëf yonent bi saxul kon loolu dëppaat nga ci jëmmi ndax jëmmi sànni ci mbir mooma loola jumtukaay nga loolu nga moom nga saxal ba pare loolu dépassé nañ ko léegi nag jubluwaay bi foofu lañ toll léegi nag bu ñëwee si jublukaay jubluwaay bi li nga njëkk wax ne danga nga da koy natt ci benn b rek du bàmmeel yooyu déedéet damaa jël misaal rek xaw pour wax ji leer du nekk di mbëbësal dañuy jël benn misaal ba misaal boobu leer nañ su ko defee ñu déggee ci yeneen yi léegi nag jubluwaay yi man duggoon naa ci mais yaa suñ nanguta àtte yaa suñ nanguta wax mooy dama ne léegi jëmm ji nga xamante ni dafa ñëw jël xaalisam sànni ci coffre bi ci jàkka ji ngir jublu see dimbali jàkka jeeg ñun jàkka jeeg léegi ki nga xamante ni dafa ñëw jël xaalisam sànni ci moketu bàmmeel bi ngir jublu see fay courant ba ñu fay courant ca jumaa ja ngir jublu see dimbal ga ñuy dimbal nit ñi wala xaalis ba ñu yóbbu sa daara ja ko boobu tam ndax baax na wala déet ndax moog bee ñoo yem wala déet loolu laa laaj léegi tontu foofu. waaleykum salaam wa rahmatullah. suñu wàdde xam nga yow man damaa jàpp ne danga maa danga maa déggul baax a baax a baax xam nga démb boo gisee man la mbir yi nañuy dellu rek ci ixtimaalaat bi. ba xam danañ ko fekk mën koo leer ci alxuraan sunna waa war a déet mooy si jubluwaay tayib léegi moo tax démb ma def orientation xanaa déggoo li ma la wax moo tax démb ma def orientation te waxaat naa ko fii si bëccëg léegi mooy que ne su fekkee ne nit ñi xaalis ba di joxee dafay delluwaat ci mu nekk saraxatan lil fuqaraa ma masaakin wala yu demee noonu li gënoon mooy ñu defee ko kon niñ ko defee ci jàkk masalan na xam ne dañoo jël ab koppar far teg ko sa buntu xabru ba nga xam ne du am benn rapport comprendre wala ñu jël diko yobbu ci yeneeni yeneen barab amma nii ñu koy defee nga xam nit ñi dañuy ñew tok ci xabru ba ñaan ba fa jël xaar sànni ko ci bir xabru ba mané lolu saxul ci alquran sunna yantu sallallahu alayhi wasallam lolu motax man ay damay joxe ay orientation ay tawjihat ci côté bobu nga xam mom lañ wara def su fekkee ni li mo nek jubluwaay waji ngir mu gëna nek nekk lu mucc ay kon faaw nga comprendre ñun ban démarche dañuy doxé ci mbir yi baarakallah Ahmed Dame Lo wër-wërloo gi mën naa ñàkk xam nga loolu ay conseil la loolu buñ ci buñ ci àggee bu ñuy jeexal peut mu nekk conseil daal mais ñun li li li li li ñu yitteel mooy àtte mbir mi ci alquran ak sunna dama la jox benn misaal bu simple il faut nga tontu ma ci oui ou ki ñëw am jubluwaay jël xaalisam dugal ci coffre-fort jàkka ji ah? def ko ngir dimbali jàkka jeeg ñu ñàkk ñeek yooyu beneen jëmm ñëw na jël xaalisam dem sànni ci moketu bàmbeel bi am jubluwaayu ñu fay ci courant jumaa ji jox te daara ji dimb si way ñàkk yi defaat ci ndox moom ñëpp a koy jariñoo nangam ak nangam damay laaj ndax ñaari jëf yi am na différence wala déet ndax yëpp baax wala bii daa baax bee bon tontu ma foofu ci laaj boobu te ngir yàlla. beneen bi mooy keneen li ma doon wax léegi suñu wàdd mooy keneen li ma lay wax lu yàlla xam ne am na ay firnde yu leer nañ ne am na xaalis yu ñuy dugal ci xabru yoo xamante si nii dafay delluwaat sa famille ba ñoom ñoo koy séddoo ci yéen biir delluwul ci ay fuqara delluwul ci ay masakin delluwul ci ay projet delluwul ci dara ñoo koy séddoo seen biir loolu am nañ si ay preuve yu leer nañ voilà waxuma rek xabru yëpp noonu la déedéet waaye am naa xam naa xabru yoo xamante ni xaalis boobu ba jógee dafay delluwaat si famille boobu voilà waaw dee sa audio bii bu fekke yow da nga xam benn famille boo xam ne buñ sànnee xaalis sa bàmmeel ya ñoom famille boobu la xaalis bay dem su boobaa loolu nekkul mbir mi mbir mbir mi ñu tax a jóg fii tey ndax yow loolu exception la da yow yaa ko gis tey ji su ma taxawee man ma ne gisuma ko keneen mën na taxaw ne gisuma ko keneen mën na taxaw ne gis naa ko kon loolu nekkul moo ñu yitteel tey li ñu yitteel mooy ñu jël mbir mi teg ko ci balance alquran ak sunna li ci alquran d' accord ak sunna ñu ne lii la li ci alquran ak sunna tere ñu ne lii la ci alxuraan sunna tere waaye ay gis naa benn famille gis naa benn nangam loolu ñoo teg fii ñuy waxtaan loolu intéressé wuñ ñu te mën naa am sang yow nga rafet ci njort bu fekkee ab jullit la bu fekkee day dem ci famille boobu ndax famille boobu gàdduwul ay daara amewul mbirum daara amewul ñeneen loo xam day delluwaat si nit ñi ndax bari na tey ji àddee ju ñuy jël di koy yóbbu ci ay kilifa tey ji président ba xaalis général xa alal lay demaat lan lay tabax nii université 37 milliards loolu day caaxaan jumaa yoo xam ne ay vingt 27 milliards nangami milliards demal xel ko euh, fële euh, Porokhane ñaata maam jaar lay dundal par jour la ñaata lay dépassé ay xaalis bu dul jeex ay millions million loolu est ce que ko joxul daay euh, addiya est loolu dana ko mën kon lépp day delluwaat ci dund nit ñi ci njëriñal jullit ñi kon loolu dañ ca war a rafet jot ci jullit ñi. waaye loolu ba tey jii dafa dàq dafa dafa taxut nekkut suñu maxal maanaam euh, sunu sunu sunu sunu liqaas man ak yow déedéet mbir mi mooy lii ñuy def nii ndax tegu nañ alxuraan wala sun wala sunna bu ko bu ko defee nag la ca aay ñu ne lii aay la kenn waru ko def la ca jub ñu ne lii jub la ñun ñëpp ñu jariñoo ko loolu moo ñu fi bàyyi. xam nga li may li may wax mi ngi nii quoi man li ma wax mooy ab xabru laa wax xaw nga xam terme yi nga xamante ne moom la ñuy employé suñu wax xam comprendre man xabru waxuma ma moquette ak yu kenn xamul voilà waxuma ab moquette ak wala ab leneen leneen waxuma loolu man ab xablu laa wax voilà barakallahu fiik xam naa ne daal tàppale moom baaxul te ci waxaat yi rek la fekk baax am moquette laa wax am xablu laa wax am nangam xam nga yooyu yëpp boo ci mën di wax rek saxal nga ne loolu bi daala du même temps saxal nga ne coffre-fort bi ñu teg si jàkka ji loolu bi daala nga xam ne kon atte bu mën a am rek loolu jumtukaay la rek maam benn bërëb la rek bu ñu sànni xaalis nga xam ne kon loolu moom benn la amul lenn lu ci am lu dul ne benn la yow bu fekkee da ngaa saxal ne bi daala xam naa bi daa xasa waaye bi daala boo xam ne du du jëmmi li ñuy sànni loolu jëmmi loolu mooy mooy jaamu yàlla ji jubluwaay bi du moom nga wax ne moom la ñuy àtte yaa àq yi wala waxoo léegi ni su fekkee jubluwaay bi la ñuy moom laa la laaj ki sànni foofu léegi xabru nga wax d'accord léegi ki sànni ci ab xabru xaalisam ngir jubloo see dimbali néegu doole yi mbokk ki sànni xaalisam ci biir kopp foofu bi ñu def si jàkka ji lan moo seen différence. waaw suñu wàllu boo gisee ma lay wax loolu rek mooy wax gi ma lay wax nga jël mbir bi rek bëgg koo teg si benn mbir ne fee lay jëm fee lay jëm ma bëgg laa xam ne dafa ndànk am na yoo xamante si nii xam naa ne fay bi carrément dañ koy séddoo loolu la wax. léegi nag moom buñ ko séddee ba pare ku nekk la koy def rek wallaahu aalam mënuñ koo xam yàlla moo xam waaw loolu laal bëggoon a bàyyi loo xel la voilà nekkul loo xam ne am na yoo xam ne comme ñu ko waxee nekkul ne dañuy jël xaalis ba seeti ñu ñàkk ñaar jox leen ko déedéet xëy ba carrément ñoo koy séddoo buñ ba pare nag am maa lañ koy defe nag ku nekk fa nga koy delloo loolu xamuñ ko wallaahu aalam barakallahu fiik waaw ah, kon nag la la ci war mooy nga rafet ci njort ab jullit day rafet njort ci ay moroomi jullitam ñoo ay julli lan te ñooñu ko ci nak ah peut être mën na yor daaraan mën na yor ay charge yu diif yu bari yo xamante day day day wat ci mbirum diine day wat ci mbirum diine kon su boba moog bele rek ñom ñoyam wa waaw bele ngay bele nga rafetal na ba pare rek mok bi ñoyam kon rafet njort sa mbokk jullit loolu am solo la ba pare ba lool ay exception la ci xagn benn benn la ci bu fekkee mën na ci am kon rafet njort sa mbokki jullit loolu dafa dafa jaadu dafa jaadu. Hmm. waaw suñu wàdde man daal jàpp naa ne li nga xam ne suñu bi <laughs> moo nekkoon lu am solo wax nañ ko ci masala <laughs> daanaka daal mën nañoo mën nañoo jàll ci leneen waaye lu amoon solo daal euh, leeral nañ ci masala bi euh, li nga xam ne moom lañuy ñuy jeexale rek mooy que ne dafay aju ci wàllu ay orientation mooy que ne su fekkee ne ab xabru dañoo sàkku si nit ñi ñu fay joxe xaalis ngir ne dañ koy delloo ci mu nekk sarxatan lil fuqara wala ay projet yi demee noonu nañ ko wutal comme ni nga ko waxee ab coffre-fort boo xam ne day nekk sa bittib xabru ba sa bittib xabru ba xam nga amut ak rapport benn xabru ba nit ñi di jël di ko fa dugal waaw loolu mooy li nga xamante si ne mooy li gën a mucc ayib am naa bu ñu duggee ci biir xabru ba nañu sàmmonteeg lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale fàttaliku de ñaanal ko fa tëdd pare daal di génn daal di dem seen yoon bu fekkee am na lu ñuy joxe te lu ñuy joxe dafay dellu ci fuqaraa yi ak masaakin yi ak yeneen i projet yoo xam ne xëy na julli ñi dañ si am njëriñ ñu jël benn barab sa côté ba fële nit ñi du ko fa dugal loolu daal mooy di gën a mucc ayib wallahu aalam baarakallahu fiik aywa jazakallahu xayran kon daal su ma déggee mbir mi ak débat yépp daal day tënku ci ne mbir mi nga doon talti talti démb ba tey yu bëree bëri deltu nga ci ginnaaw ndax bi nga ñëwee fii démb li nga jëkk a wax rek mooy ne teg si sànni sa foto yu war ne joxe xaalis si ay bàmmeel saxul ci sunna biddaa lu bon la lu ne nga wax ko léegi nag bi la takk taxawalee mbir mi war a tege ci ay firnde nag ñu indil la misaal boo xam ne misaal la boo xam ne yaa ngi koy def say sëriñ ñu ngi koy def mooy jël coffre-fort teg ko ci buntu jàkka di ca joxe xaalis ma ne leen lii lan mooy différence bi léegi nga ne bee biddaa la en même temps nga ne bii itam biddaa la te loolu rek nga mën a wax parce que bee itam saxul ci jëfi yonent bi di sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ginnaaw bi nga ne jubluwaayu nit ki la xool ma ne la kon de bu fekkee jubluwaayu nit ki ki sànni xaalis si jàkka ji koku bu dee jubluwaayu dimbal nit ñi yeeg dimbal fay courant beeg yoy en même temps ñi ëpp ci ñi sànni fële ci xaaliss ba jubluwaay bobu rek la di am ñoo tam ci bàmmeel yi moy ñu dim fay ci courant djuma ji yobbu ci daara ja xel koom yobbu ci dimbal nit neew doole gi loolu mo ci am bu fekkee xam nga ci ay exception yoo xam ne loolu day dellu ci famille bi ba tey da nga caa war a rafet njort jàpp ne rek ñooñu ñoom itam fan ko jëmee leer na kon li ëpp solo mooy nit ki rafet njort ci ay mbokk jullitam kon yow su ma la déggee ak sa nasiha bi mooy aayaloo kon aaya la tawub kon deltu nga ginaaw bu baax a baax ci jël xaaj di nga di nga ko def si bërëb yooyu noonu waaye la nga wax rek orientation yi nga joxe rek mooy nan gën a jël ay coffre-fort def ko ci wetu bunt bi nga xam ne daal dangay ngay sànni doog di dugg ci bàmmeel bi ah kon alhamdulilah lii day wane ay ak taraajox goo xam ne def nga ko rek ndax li nga doon waxee démb ko ko déggee xam nga ne wute na lool lool lool tey jii ak li nga xam ne d'accord nga ko te loolu yëpp li ko waral rek mooy mbir mi toujours mbir mën ngeen koy ñaawal lool lool waaye bu ko tegee ci balance sharia moom <laughs> dana amaat beneen dimension macha allah kon ahmed damlo loo rek lan seetlu ci mbir mi kon bari na mbir yu ngeen di ñi yoo xamante ni saa bu ngeen ko tegee ci balance sharia ak dal teg ko ci ay firnde rek ndeke day am beneen dimension ndax ku dégg démb ni nga doon waxee sanni fi photo bi saxul ci l'islam sanni xaar bi haram na nanga lu ne nga wax ko bidda la yonent saxul ci jëf yonent gis nga bu ko tege ci balance sharia ngay def lo xamanteni mok lolu ben la nga xamne yow la nga ci ñaan rek moy lenn si jubluwaay ñeen nag ñoo xam ne ñoo dañ leen jàng rek ñu xam ko moy rek kenn ko dem diko sanni ci kaw bi ci dugal wala bok nga ci manam a way yo xamanteni lolu waxu waye ñepp ci ñoo fay jox du loi bu rafet la am moy dimbali ci nit ñi xey jaaka yi nang jaaka jek euh ah, ak la saaju te li ci mu mën del wacc daara yi kon lolu kenn du jël ben mbir rek ñaawal ko il faut nga am dalil donc wala sare mo koy ñaawal nga dog di koy ñaawlu waye du sa xel mu ki rek wala kurel bo xamanteni ni xañ organisé wu nan ba yu bari ñukoy mëna amal rek loola eh, iñaan dag sa xol rek tax foo toll di ñaawal mbir ma te tegoo ko ci benn firnde kon jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa daara ji wa aiddu lahum maa ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara suñ bay wàdd laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah fa buhita alladi kafara xam nga waa ji dafa dugg foo xamante ni daa daa daa jël buum gi yeew ba mu dëgër mu bëgg a rëcc te mënut a rëcc maanaam dig digal bi mu ko digal bi mu ko dugal fi mu toll nii day wëlbatiku càmmoñ ak ndeyjoor waaye mënut a rëcc <laughs> xam nga ñaari yëf yi képp benn la yaa ngi dégg sànni xaalis bi ci jàkka ji wala jumaa ji wala ko sànni ko ci bàmmeel ba benn la gannaaw yow nee nga maanaam ca char ca jamono yonent bi saxul ci alxuraan nii sunna teg ab sunduux ci biir jàkk di ca sànni xaalis saxul ci sunna bi kay fiya dégg nga léegi nag jëmmi jël xaalis sànni ca kees gaag كي دم شيء خبر بساني كف مم بن لا كي دا داج أك كسم كي مم لال أي ما كتم خم كي فيه بن لا نحن بدي بيت جاك جا ما سهل نحن إقرار نحن لول بيدا على واي نك نحن يفي بتي جمي كي فيه واي مني مني مني أتبع الحكم مني تفي فخالص بدي دم لول رجل ورانا أمبلوا فيه دادي نقلو تمو يبكو سهل فيه رك سهل لك فيه بن لا waaye sànni ca bàmmeel ak sànni kii képp wax ji benn la maanaam jëmmi sànni xaalis rek bàmmeel saxul ci alxuraan saxul ci sunna sànni ko it ci biir jàkk saxul ci alxuraan saxul ci sunna yaa ngi dégg léegi yëf yi moom benn la yëf yi moom benn la sawaa an bi sawa waaw waaye nag bëgg naa défendre lii te mënu koo défendre bëgg a dàq la la <laughs> laa ilaha illallah <laughs> yuxilluuna wa aman wa yuxarrimuuna wa aman xam nga waxaa bii dañ dul am dañ dul dañ dul dañ dul xalaat waaw ndax ñoom da leen a dugal ci dig digalu biddaara te mënuñoo comprendre lan mooy lan mooy biddaa te li nga ko joxe ci ay misaal rek noonu la demee xaalis bi ñuy sànni ci xubur yi fee moom la ñu jël di ci maga ci jàkka yaag courant wu jàkka jaag ndox yaag ndimbalu daara yaag lépp ci lañ koy jële loolu dafay delluwaat rek ci dimbali alfoqara awal masakin ak almuhtajun dégg nga munu koo mun kii moom <laughs> kii moom xam naa ne moom sëñ bay wax de kii kay moom boobu nga nga nga nga wut keneen kii moom kaawam féete na boor euh, wutal beneen waxaa bi <laughs> macha allah débat bi am na solo.